relajo. koom-koom dañ ciy ànd ak euh, Maymuna May na nga def. Euh, maa ngi fi Pape Cheikh. ba yaa ngi ci jaam. may sant bu baax. sa caq baax na de. ah merci fi mu ne de ki nga may fàttali Viviane Wade. ah mhm. xam nga yow kuy xëy di dendandoog yow faaw muy def ba mu ah, baax. ah lu baax xam nga bëtu gan bi laa yor ah, baax rek laay bëgg di gis. <laughs> moo tax ba may la bii. teme la wala lan la de. lii am na pemé c'est un mélange de pemé. Uh, de non kii ah, <laughs> la tressé dañ ko tressé nii ak leen. mu am ay ay sénégalais ñoo ko defar parce que yow ci consommé local ngay dox. waaw waaw ba tey ñi dawul mbaara ko defar tëgg dawul mbaara ñàkku ci de xam nga man dañoo jël rek jox dëgg yàlla. soo maytuwul nag fii lañ ko defaree de parce que gis naa ñu tressé ko defar ba mu baax daal ñu leen lettu ko quoi ay datt bàyyi la wala ay ay <laughs> bëgg <laughs> ah, <laughs> ay renversé la ay renversé la waaw ay renversé super alors tey ci économie da nga ne danga ñuy wax loo xamante ni peut-être du lu sénégalais yi di faral di waxtaane mais ci dëkk yu mag yi dañu koy waxtaane mooy nu ñuy def ba am courant ci beneen euh, ci beneen ressource. ressource voilà Pape ni nga ko waxee noonu la xam nga Sénégal moom euh, dañoo jóg ci yoonu yokkute jóg pour changer jóg pour dem nekk pays émergent. Hmm. maintenant jóg boobu nag nekkul rek si wax donc il faudrait qu'on se donne les moyens pour ñu mun a réussir li nga xamante ni mooy pari euh, du succès wala mun naa ni pari du développement. donc c'est dans ce sens nag nguur gi ñoom ñu ngi ciy liggéey léegi dafa am benn agence boo xamante ni dañ ko mettre sur place mu tudd agence nationale des énergies expliqué woon sànq. agence boobu dañ ko teg pour na pour que xeetu énergie yi nga xamante ni war nañ ko xeetu source d' yi nga xamante ni war nañ ko mën a exploiter pour Sénégal am benn dépendance en matière de source énergétique ñu mun ko war a gën a mun a exploiter au maximum. agence boobu nag seen directeur dem nañ seeti ko. waxtaan ak moom mu expliquer ñu yan façon source d' énergie renouvelable moo am Sénégal mais agence bi tamit lan moo ko tax a jog ak képp koo xamante ne am nga projet dans ce sens nga war a mën a doxee moom duñ def lu dul Pape boobaa daal di dellu si waat si plateau bi. problème alimentation en énergie dafa yàgg Sénégal moo ne am na yenn xeetu énergie yu ñu duppee énergie renouvelable yu ko mën a saafara. bu ne énergie renouvelable nag mooy énergie solaire mooy buy jógee ci jant bi énergie éolien buy jógee ci ngelaw li biomasse buy jógee ci euh, ci mbalit meeg yenn déchets yi ak petite hydraulique bu jógee effectivement ci chute d'eau yi. Euh, bu ngeen seetloo at ci gannaaw courant bi prix courant bi da doon gën da doon souvent da doon faral di yokk li ko waral mooy li ñu defaree courant ci Sénégal li ci ëpp dañ koy jëggaani muy ay produits pétroliers te ñun maîtriser wuñ ko produit pétrolier non seulement maîtriser wuñ ko produit pétrolier yi dafay continuer di yokk bu yokkoo coût de production euh, kilowatt heure électricité bi également de yokk et soit. le prix de vente suit soit état bi euh, pour maintenir les prix subvention subventionné différence bi. nguur gi teg fi agence nationale pour les énergies renouvelables ngir mu mottali liggéey bi Senelec di def. il fallait que ñu trouver solution pour jéem au moins réduire dépendance boobu énergétique du Sénégal vis-à-vis de l'extérieur mais également trouver solution pour réduire la facture pétrolière dëkk àll bi nga xam ne courant àggu fa te gent bi bari na fa am na soleil ñu mën fa def yóbbu courant euh, ci njëg gu yomb euh, mën a permettre nit ñi ñu am éclairage non seulement ñu am éclairage mais ñu mën a développer ay activité économique ci courant boobu donc ñun suñu liggéey effectivement liggéeyu alliance bi mooy def promotion énergie renouvelable de telle sorte que nit ñi gën ko xam nit ñi gën ko mën a jëfandikoo xam ne effectivement mooy c'est l'énergie du du futur. ANER nag am na rôle bu mag bu mu war a jouer ci plan Sénégal émergent bi. ñun li ñu ciy contribuer mooy ñun nous on va aller on est vers le <coughs> le milieu rural dans les villages pour essayer au moins électrifier euh, les infrastructures communautaires dama électrifier les écoles par base solaire toujours électrifier écoles yi les postes et les cases de santé euh, les lieux de culte mosquées ou églises. un peu d'éclairage public développer di pompage solaire parce que c'est des zones yoo xam ne c'est tellement isolé. muy mel ni solution feeñ na ci wàllum énergie au Sénégal. il faudrait que nit ñi les particuliers les PME mi ñoom ñu jël aussi en jéem a jël en charge seen propre consomation mais mun a gis nga gis nga gis nga gis lii boo ko xoolee xam ni ñun tamit am nañu ay ressources yoo xamante ni mën nañ fa jëlee courant. effectivement Pape Cheikh gis nga ni ko expliqué et puis xam nga dañ ni que dañu bëgg euh, Sénégal zone rurale yëpp ñu électrifié euh, def fa électricité. ñu def fa courant waaw parce que mot bi dama kaa mënut a <laughs> prononcer. électrifié non y a des mots que j'arrive pas à prononcer. mais pourquoi en fait ça arrive ça a bien dit waaw. voilà c'est que si moo lay ndax électrifié. <laughs> waaw li nga ne électrifié. voilà da ngeen tu de dire électricité ba pare doog a eggali donc euh, comme dañu am euh, benn ambition boo xamante ni dëkk yi nga xamante ni dañu nekk ci zone rural yépp uh-huh. ñoom ñu am accès à l'électricité donc te ressources yi nga xamante ni Senelec mu ko am en uh-huh. matière d'énergie fossile parce que il faut savoir que forme euh, type d'énergie dafa bëri uh-huh. énergie fossile ñun moom la ñu tàmm di utiliser mooy bi nga xamante ni ah. pétro euh, pétrole ak charbon la. Ah. comprendre nga boobu moom la Sénélec di utiliser. Ah. te énergie boobu noonu booy xool ñun amuñu pétrole xam nga. Mhm. donc du coup c'est des centaines de milliards par année le gouvernement bi di jël jënd pétrole boobu. Ah. alors que ñun au Sénégal am nañ euh, soleil am nañ vent parce que vent bi rek il faut savoir que euh, boo xoolee de façon d'ensemble six mètres par seconde le vent bi di tourner te mhm. ay régions yu mel ni que Dakar mhm. wala Saint-Louis. 30 voire 40 mètres par seconde dañuy am vent rotation vent bi. bu fekkee soleil bi tamit on a 3000 euh, mètres euh, enfin on a 3000 mètres carrés de de de soleil. par par an comprendre nga un pays qui est éclairé 365 jours sur 365 jours. maanaam dañuy bëri naaj daal naaj chaque jour la chaque jour étel. dafa dafa bëri naaj te te façon énergie am ma listé ko pour ñi nga xamante ne ñu ngi dégg énergie renouvelable. xam ñuy lan la. Mhm. donc am na énergie solaire. moom la ñuy woowee thermique mooy bi nga xamante ni si rayon solaire yi lay jógee. am na éolienne mooy bi nga xamante ni vent yi la. ak. am na <laughs> bi nga xamante ni mooy hydraulique mooy ndox bi ak courant marin yi. am na bi nga xamante ni mooy biomasse biomasse sax moom la ñuy wax euh, l'énergie des pauvres parce que mooy euh, bi nga xamante ni ñax yi ak euh, nan a woowee parce que sànq man ngi lay ndax li ma gis lu li ñuy jox xar yi pour ñu koy lekk ay ngooñ ay ginnaaw këru fas yi wala genre hmm. yooyu noonu ginnaaw kër dëkk ci <laughs> ginnaaw nga luy ginnaaw kër mooy énergie ah, boobu mooy énergie biomasse bi si mujj nag mooy énergie géothermie mooy bi nga xamante ni si sol bi lañ koy jëlee donc voilà si suuf si ah. donc xam nga kon ñun am na yenn ah, opportunité yoo xamante ni yooyu yëpp am na fi te il faut savoir que Sénélec instant bi demande bi nga xamante ni population mu ngi koy demandé en électricité ñoom mënuñu ko satisfaire. Mm-hmm. mais may mun na loolu moo ma jaaxal justement demande bi mënuñu ko satisfaire am nañu base bi am nañu yëpp pour defar beneen énergie di énergie renouvelable pourquoi qu'est-ce qui bloque bi nga demee laajoo leen ko. Euh, xam nga man fee laa demoon euh, agence nationale des énergies renouvelables. mais mm-hmm. ñoom ñoom ñëpp ministère de l'énergie moo leen coiffé. Mm-hmm. mais xam nga lan mooy problème waaw comme quoi da leen brushing ñoom ñëpp. <laughs> ñoom ñëpp. arrête de jouer au bébé. Eh, je ko affaire eh, wax nga dëgg. ay eh, ñoom kii ñoo fa nekk Adja maanaam dafa nekk ci kaw. ak Fatou Laye moo leen moo moo leen uuf ah. waaw moo ba Diop fa moo leen uuf. wala mun naa ni moo leen moo leen moo leen jaboote. moo leen jaboote ah, moo leen jaboote d'accord voilà. donc bi euh, Bijou pour en revenir à ta donc xam nga Senelec déjà moom mu ngi produire kilowatt heure bi 97 su ko mhm. produire 97 francs uh-huh. euh, ça lui revient à 100 140 francs le kilowat heure comprendre mais comme dafay chair te population bi ñoom attanuñu loolu état bi daf ko ah, subventionné loolu mooy ni ñuy mesurer courant bi courant bi ñu lay jaay ah. comprendre nga léegi loolu noonu par kilo koy jaay wala par kilowatt heure dañ koy ah, mooy unité d' énergie wu courant. comme ceeb kilogramme la. voilà may ma rek yow dafa nànk rek yow da bëgg ñu toj ko dinañ ko toj ceeb <laughs> kilogramme la. voilà euh, ceeb gramme la nañ wax ci gramme. ndox litre watt la ah, watt la léegi kilowatt. da ngay naan kilogramme kilowatt. kilowatt ndox ñaata comprendre nga. ndox litre la. léegi comme bu ñu sonal dama lay laaj xaw ma di dama xaw xaw <laughs> léegi comme 140 francs boobu lay lay lay lay dikkee Sénélec ah léegi nag dafa chair population bi attanuñ ko ah. léegi état bi daf ko subventionné donc Sénélec mu ngi koy jaayee population bi cent euh, cent dix-huit francs le kilowatt heure ah, hmm. loolu ba tey xam nga dafa cher parce que bu hmm. fekkee nguur gi dafay ñëw di compenser loolu hmm. noonu yooyu yëpp dafay metti léegi nag ñoom agence bi lan mooy seen rôle mooy ni que keroog maa ngi leen dégg ngeen wax lu am importance ñoo xamante ni dañuy ñëw ñu am génie en ñuy ñuy def ay affaires mais nit yi dañ leen di jàpp pour ay yooyu maa ngi déglu sama rajo dem di liggéey kon nag déglu ah waaw waaw ñàkk leen déglu wóorul déedéet <laughs> waaw waaw xool li mu tasee gën a faasoo kontaan naa <laughs> yii laa bëgg kuy wax di tas di jaatal waaye toog rek waa comme vous savez aujourd'hui économie nous allons parler de <laughs> changement de l'économie de l'économie éolienne eewul yéen lii kat yëngal bopp bi eewul yéen ah, ni nga tasee sa gërëm kon neex na expliqué ah. damay kontaan waaw baax na voilà léegi euh, génie nit yi ak euh, voilà <laughs> ñu bëgg ñi nga xam ne dañu jàng xam nga genre bijou bi nga xamante ne moom defe naa bac scientifique la am licence de chimie voilà xam nga genre googu bu ñu ko utiliser woon genre mm-hmm. pour projet yooyu noonu ku nekk sa passion dinañ dinañ non waxuma waxu passion damay wax ñi nga xam ne ñoom ci laay waxal ah ok génie chimie la jàng ci wax Euh, wax da nga mujjee. Mm-hmm. waxaloog la. am charme moo tax donc par rapport à ça il faudrait que jeunes yi ñu may leen ñuy euh, ñuy ñëw si projet parce que dafa nekk ay projets yoo xamante ni. Mm-hmm. mag yi mm-hmm. ñoom tàmmuñu ko parce que tombewul ak seen air. parce que booy xool tey États-Unis euh, entreprise yi fa gën a mag c'est des jeunes ay moins de vingt sept ans moins de trente ans booy xool Facebook booy xool yenn projet yu mag yi. donc état bi dañu teg agence bi pour ñi nga xamante am nañ ay diplômes dans ce sens wala ñi nga xamante ni dañu <laughs> Mark Zuckerberg baal ma la désolé dëgg la noonu la kay xale ay ay xale rek ngay gis yu mag yu wër àdduna ñoom Zuckerberg voilà donc il faudrait que nag Sénégal bu ñu nee développement développement yamul ci wax rek donc il faut qu'on se qu'on du mécanisme nécessaire pour ñu dem vers ça donc enjeu bi nag mooy hmm. comme euh, entreprise yu mag yi comme euh, ay euh, TFM groupe Futur Média ñu mën a mun war a mun a dem vers l' renouvelable c' à dire su fekkee ni que da ngay da ngay def say installation nga war a mun a am loo xam ne prévoir nga ko pour que yow nga bañ a dépendre directement ah, si Senelec suñu bopp suñu courant ah, te loolu bu fekkee benn investissement bu xaw a cher tuuti la. mais da nga koy amorti parce que après doo fay facture ak sa entreprise nga nga nga nga xëccal sa nga amal sa bopp. nga liggéeyal sa sa bopp sa courant. sa entreprise sa kër sa appartement sax. parce que dafa am benn système booy jënd rek. ñu installé la ko ñu placé la ko jaay fii Sénégal. waaw mais mais man dama doon dégg ñu ne que amoo droit def ko parce que Sénégal ñoom ñoo am. Euh, exclusivité si si si énergie bi. non loolu énergie fossile bi la mooy côté thermique bi. mais tout ce qui est euh, secteur bi libéral analyser nañ ko et puis gis nga ni sax euh, au Sénégal fii am na plus de ay cinquante entreprises yoo xamante ñu ngi évoluer dans le solaire ah. maintenant xam nga ñoom lan mooy seen problème mooy sénégalais yi ñoom demaguñu vers parce que mm-hmm. accepté guñu ko comprendre nga il faudrait que sénégalais yi accepte ko pour ñu mun optimiser ressources yi nga xamante ni mu ngi koy euh, am en matière d'énergie parce que lii nii ñëwul pour concurrencer la Sénélec mm-hmm. dafa ñëw en amont est Euh, pour mun ko tester. Mhm. dañuy jël les grandes maisons comme Palais. Euh, comme euh, collectivité locale yi. Mhm. comme euh, rue yi. Mhm. mairie yi voilà. Mhm. ak mooy panneau yi nekk ci mbedd yi. lampe commencé nañ ko ba pare. xam nga bi def nañ moo fay daw mooy lampe yi nekk ci mbedd bi. léegi nag dañ ko bëgg a joxe en exemple parce que bu ñu ñëwee ñu ne assemblée nationale kat dépendre si Sénélec. xam nga énergie solaire la ñu ñëw ñu ne mairie yi léegi dépendre foofu donc peut que dina inciter nit yi. ak entreprise yi dem vers ces entreprises là te man bi ma demee Pape Cheikh dañ ma wax loo xamante ne dafa ma xaw a jaaxal te defe naa ñu bëri tamit xamuñu ko mhm. ndekete soo demee Sénélec ngay def abonnement mhm. xam ngay gis koo xamante ni day waaj tabax këram mhm. ñu ni ko euh, day tabax pareegul ñu ni ko lan moo nekk sa kër nga ñëw nga ni bon dinaa def clim xam nga dinaa def télé léegi am na ñoo xamante ni dañuy sóoraale pour bu ñu paree installation yi fay nekk parce que man noonu laay def par exemple bu ñu ma waxee même bu fekkee damay installé bureau dama naan bon am na ñaari kilim am na lii am na lii parce que damay xalaat ni ko su ma demee ba ci biir mm. mun naa installé beneen clim ak yooyu ndekete yoo yow boo defee loolu ñoom li nga li nga li nga estimé ñoom dañ la koy jaay loolu si contrat bi. lay ah li lañ lay jaay même bu fekkee consommé woo ko. même boo amul bu fa amul. bu fa amul donc booy déclarer sa facture wala boo ñëwee sene Sénélec nga dem di def demande d' abonnement il faudrait que yow li nga am présentement rek nga wax ko. parce que boo waxee loo xam léegi loo jënd nga dem boo demee ba jënd nag da ngay dem ñu yokkal la da dem mii moo gën parce que nit ñi dañ koy sóor daan ne comme duñ ko consommer kenn du leen ko wax parce que ñoom dañ ni comme nga ni dinaa consommer je sais pas cinquante kilowatts. Mm-hmm. ñoom dañ lay fournir cinquante kilowatts. dërëm sax facture bi day moom dafa doy waar. des fois da ngay gis sax ñun dañu tàmm loolu ñun mm-hmm. sénégalais ah. dañuy euh, euh, yolomal wala yombal loo xamante ni. Mm-hmm. Euh, boo nekkee nit ku sensé da nga ci war a bàyyi xel. parce que loolu noonu mooy tax da ngay gis kii nit ñëw ni lii laa am lii laa am sama facture dafa cher fekkante ne yow bi ngay déclaré da dina ñëwul parce que ñoom nee nañ boo nee lii laa soxla ñoom dañ la koy fournir mm. donc même bu fekkee consommé woo ko <laughs> di ko fay mais mun na dama lay doole rek tey moom vraiment euh, tey guddule nga de vraiment mais tey ko bàyyi mu may mun na nag may mun a nag ah, ah, ah wax nga nag ah énergie renouvelable la wax nag fii may mun na nag tey wax nga